Wack TV moo leen di may seen série mbëggeelu Kaana wante xam nga wala baay booy nekk gaan maa xaar booba tey manuma leen gis waa mais illa la ni baay coppoon mais li dal de mais xool woo bi gaan nu mu nes وجاري لاور ويو تاكلو تغرلي علي نيتي كو بس سوف وني لا دو ريبي مي خول خول كون جابي بوي خول لي تشوك بو بو ما بريتي يفو ما تغال كو لي نيتي مان غان زار كان اي لاور خرب اميز ليس بارون غان Potou. Coopoto yaa sadiri bu windoolu den windoolu mo hola wayaarul coototo mo mooy li ma doon rêvé yi nii laa doon wër mooy genre booy nan la ko yàlla mën a télé fii gaañ te du ma leen gis apata booy wayaarul ma xool wayaarul gaañ wayaarul ma xool jàppale ma ci gaañ tey nga laal bant ma taxawee ba tey yaa ngi wax noppi woo mais foo ma wax su ma gisee li ma daan wër damay yebeeku damay teg jeen li ma tax a jóg mais xool sourire bi bàyyi yaa ngi fex sama xol xam laa bëgg booy nga jox ma xoolal dafa ma ndey numéro bi fii saa après man naa la càpp gain. eh di nga tas suñu téléphone bi yow. mu ne. téléphone bi na duggaat na delloo fi mu nekkoon may gis. duggaat pour lan. yow li ngay vulgaire wax yëpp xam nga lan laa la yëgal bu ma gis may dox ci mbedd bi ñu naan danga may def di sa ñàkk may dégg man am naa leneen lu ma war a doxee. da nga nekk di wax say wax yi yaa ngi may dégg. wa waaw. noonu ko gisee. loolu laa ko gisee. mais waroo wax ne Afrique ñàkk fu la mais bu sama yoon nekku si. da war a xam ne nitu mbedd nitu biir kër man du ma nitu mbedd bay taxaw ci mbedd et ci mbedd yaa may dégg. yow lan nga may tegal. loolu laa lay tegal. mais yow lan nga si problème. mais xanaa gisuma ni ma jantalee ak ni ma kaana. ma Wack TV moo leen di may seen série mbëggeelu kaana